asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi safoo si 313 digital a waat bu a baax di wax ne leen dal leen ak ci euh, message bu am solo bi nga xam ni Ousmane Sonko daal dina koy euh, jagleel euh, Sénégalais yi depuis foofu noonu ca Cap Manuel fa nga xam ne jamono ji daal di nekk ginnaaw nag ba décision tribunal de Dakar daal di génne keneen kat nañu daal di di génn def ab post ci son compte Facebook di. ñuy xamal waaye tamit di am contentement loolu ci euh, sénégalais yi moom nag Ousmane Sonko la mu daal di euh, jiitale rek mooy euh, a baax ci ndam li nga xam ne rek ko ko waaye tamit ci jëf yi nga xam ne mi ko koy daal di jëfal et que aussi daal ne ñoom ñooy ay avocat am daal dina leen di sant a a bi nga xam ne jàppale na leen waaye tamit fàttewul peuple sénégalais bi nga xam ne mooy sonn di daw ci ginnaaw ki porté projet bi nga xam ne rek Ousmane Sonko moo leen ko daal di euh, xamal euh, euh, moom mooy boobu di leen a leen di remercier ak ñi nga xam ne ñu ngi ci réew tugal yëpp di jàppale Ousmane Sonko moom itamit daal dina leen di remercier waat bu baax a aussi di ñaanal euh, réewum Sénégal jàmm daal di fi euh, sax di nekk mu nekk ab message boo xam ni Ousmane Sonko daal dina koy euh, lancé jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal bi nga xam ne rek am na ko ndiki tey ba bi daal di jëlee ab ndogal nekkat Ousmane Sonko nañ ko dugal ci liste électorale bi daal di weddi rejeté radiation bi nga xam ne rek bëggoon nañ ko ko def génnee ko bi juge di jël ab décision boo xam ni ñi ëpp ci askanu Sénégal dañ cee daal di am li nga xam mooy ab contentement francs moo waral ki nga xam moom mooy Ayib Daffé nekk mandataire Ousmane Sonko moom nag ba léegi ne kat dina dem foofu noonu ca DGE ngir daal di jëli ji euh, fiche de parrainage waaye naka laata loolu dina seq waxtaan ak ay avocat Ousmane Sonko ñu xool rek nan la ñuy daal di def ak nan la ñuy demee de de parrainage pour ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko puisque moom moo nekk le mandataire bu candidat Ousmane Sonko jamono ji nekk foofu noonu euh, ca prison comme ni ma ko waxee ah, tontu ndiki tey justice bi dafa daal di maanaam jël li nga xam moom mooy ab ndogal ah, nekkat Ousmane Sonko dina bokk ci élection février 2024 daal di nga xam ne moom mooy fichier électoral juge bi daal dinay confirmer décision bi nga xam ne rek juge Sabassy Faye foofu noonu ci tribunal de Ziguinchor jëloon na ko ci mois d'octobre bu nekkat Ousmane Sonko lañ ko dugalaat waaye gis nañu Cour suprême dafa cassé boobu les décision ci mi novembre bi nag la daal di jëlee boobu les ndogal tey nag tribunal de Dakar jël ndogal ne kat Ousmane Sonko dafay daal di participer ci élection yi et que nañ ko duggalaat ci liste électorale waaye nag feneen foo xam ne farat a foofu noonu ca Cour suprême mooy ca mbirum euh, Barthélémy Diaz ak euh, déew ki nga xam ne moom mooy euh, Ndiaga xamal que ne mbirum Barthélémy Diaz boobu li dinañ ko daal di fixé le 22 décembre prochain maanaam 22 décembre bi nga xam ne ci lañ daal di jëm dinañ wax ci mbirum génn àddina ki nga xam ne moom mooy Ndiaga Diouf moom nag nekkoon ab nervi ñu daal di koy euh, faat par bal ci kanamu fi nga xam ne ci kanamu euh, mairie de Mermoz Sacré-Cœur en 2011 nag la mbir ñu euh, daal di amee ba tax na rek moom Barthélémy Dias ñu daal koy tudd ci loolu li ba cour d'appel sa daal di koy condamné lu toll ci la daal na lu ni mel nag moom Barthélémy Dias jàpp nekk ne kat dañ koo daal di tooñ loolu laalewu ci dara moo tax mu daal dugal li nga xam ne mooy ab pourvoi foofu noonu ca cour suprême ngir daal di uh, cassé boobilee uh, décision ba tax na nag uh, ndiki le 22 la cour suprême war a addu jëm ci mbirum Barthélémy Dias boobilee ba xam dafay confirmer condamnation bi wala daf koy daal di rejeté loolu nag ndiki le 22 décembre la ci daal di xam dara mais nag dafa am lenn loo xam ne rek moom Barthélémy Dias war na ko mën a tiit bu ñu confirmer boobilee condamnation rek moom Barthélémy Dias na ñàkk fonction yi nga xam ne jamono ji moom moo ko daal di gérer moo xam mairie bu Ndakaaru moo poste député moom itamit lépp rek mën na koo ñàkk moom Barthélémy Dias bu dee Cour suprême dafa euh, confirmé condamnation bi nga xam ne rek cour d'appel daal dina koy def waaye nag suñ ko confirmé wul loolu nag mu nekk ay sanctions yoo xam ne moom mën na ko daal di am mu nekk ab mbir moo xam ne ndiki le 22 décembre dina leer dina leer foofu noonu euh, cour euh, suprême fi la ñu di wàccee bi suñu ay bu baax a baax di leen joxaat ci kanam tuuti ak yeneen i information waaye nag bu leen fàtte